génnee ko Sidimou Ndiaye Diakhaté bi ko remplacer mosul génnee rapport ba publier ko. bi wax ak mom non mais façon nap yoy la lay nap napp. Mhm. dégg nga bax hmm xam nga fi tay gisoo leader yu beuri amuñu poste te do leen dégg ñu wax. amna sax na sax xam fay xey tax amuñu bureau mais. mais xam nga que hmm. mais da am pactole bo xamné ne moy guen hmm. des salaires ah de responsables de Benno bok qui n'ont pas forcément de poste mais qui ont des salaires hmm. gis nga ko colloque du wax système bi la comprendre gis nga on ne parle pas quand on a la bouche pleine da nga civilisation mais gémmiñ du wax. voilà mais mais bi c'est très révélateur. daf qui n'ont rien compris. Hmm. il ne s'est pas trompé en disant ça. Hmm. parce que ces agitateurs yi fi di xaw jaxal touti mo xam sax ñi àndandoo ak mom parce que gars il font de la pression souvent mhm. pour nga téye wala mhm. ñaama bi di yokk wala nga jox leen dara wa tout à fait mhm. mais il a compris que ñoo ñep xamuñu enjeu état xamuñu enjeu aduna bi té mom xam nako ko xam na fi mu jëm mom xam na fi mu jëm motax amateurisme bobu mu gis motax tay bo gisé tay politiciens yu bari am jafé jafé mais parce que ñàkk man je ne sais pas xawma dafa am lu néwon ci politique dee xaw ma boog dañ ko nëbb wala boog dañ koy jaay te ñi fi ne amuñu njegam parce que tey boo bëggee défier un état. bëgg défier état mais parce que teew xamoo ne so war ngaa mën a xam ne l' état c' est un monstre froid munul ne. munoo non munoo tey nga ne da ngay Sénat waxul dëgg. DGE nga ne waxul dëgg. conseil constitutionnel ngay tooñ naan seen yu xonq yooyu di leen doyadil alors que c'est des tenues gouvernement Macky nga Macky pour reprendre des mots du cité citer sénégalais ne sont pas amnésiques dégg vidéo déggati mhm. wa boo bëggee nag ne état da koy songee c'est parce que le président day xam ne il a rien compris mm. yow tey par une erreur rek de maniement d'arme d'une virée militaire rek mais mën nañ ci mais éliminer kuñ bëgg du mm. mujj fenn mm c'est une erreur la ah. l'erreur est conçue en droit. balle perdue. Hmm. mais doo exister état c'est-à-dire état moy doxé non du Sénégal rek état pas état dafa am doolé nak maintenant bu féké nak yow ci côté bi nga né qui ci un état. Hmm. ak nak ki xam état un xam né mom ay balam na les recyclés un wax soit da ngay un recyclé organique wala mécanique <laughs> yaay un fi ngay demuñu télé ne nit lañ fi négocier. mais am nañu bind <laughs> baalu génn di yuuxu te seen lettre yaa présidence. Eh, baa du génn. yàlla xam na palais <laughs> du wax lépp. bari na ñu fi laax di wax. Mm-hmm. Mm-hmm. dañoo nem nañu baal nañ nañ ñu baal. tey mm-hmm. man de biram Souleye rek laa fi gis publiquement te xamoon na li il il a fait publiquement. waaw te waa bokk nañ ci ñu jege yi ñu ko ko xelal ne ko jéggalul ndax lii bu ci teg baaraam muy ñaaw. Hmm. mu jéggalu waaye nag wolof mooy def sénégalais mooy def mooy jéggalu ba nga bàyyi ko mu xëy rek daal ne ñeme woon a bañ a baal. déggoo ma. waaw ma yokk foofu dugal dugal benn affaire journaliste bu siiw boobu di ngand ngandalu fii. Hmm. ba mu fi defee njombeem bi. toog ba si yàgg ñu réhabilité ko. Hmm. muy ngan ngandul fii di dugg ci ay affaire caaya Macky Macky da koo woo ñëw. Hmm. ne ko naa la fu ma la foo xam ne. Hmm. su ma la bàyyi woon tey. à perpétuité lañ lay. amul werante kon dafa rëcc na réglé nag. wax leen ko mu réglé waay. na réglé. waaw parce que booy xool moom it coo loolu. bu ca loxo duggutoon ku ne xam ne fi muy mujj. na réglé nag ku ne xam ne xeex ak. yow nag Oumou Ndoye da war a wax sénégalais yi nag kooku kan la. man. ma xam na ni man je <laughs> non mais mais mais mais mais non non les gens vont comprendre. Ah, xam xam souvent. <laughs> souvent xam souvent euh, ici au niveau de public. Euh. au-delà des acteurs. politique yi nga xamante ne sur des faits yoo xamante ne c'est des faits non graves politique la mmh, mmh. ci seeni i yooyu yooyu mënees na ci mais dafa am loo xam ne bu bu bu bëttee buntu kër rek mmh, parce que euh, ka ngay tudd dafa ami gone yori yori soxna souvent souvent ñu fàtte waroo ranimer la flamme donc mën nga rek de manière parabolique. waaw da koo brosse rek waa junju. waa junju day xam waaw ñi ñi ñi ñi xam-xam nañ. waaw góore waay. voilà ñi ñi nelaw comme man ñu ñu ngi noonu. ñun ñëpp am ayib gis nga nii boo defoon micro trottoir xëy na sama jëmm ji. dana la wax xam ne dootoo ma fonk. ah yow rek la ñuy def. adduna moo tëddee noonu. wax rek la te te ni ko ni ñu ko yettee. Mhm. Euh, moo tax man damay faral di di di di di wax ne ñi nga xamante ne dañoo bëgg a jiite jaamu yàlla rek a leen war. Mhm. parce que nit ñi yaakaar dafa doy waar. comme ça sa xol toj nga mën a dékku. waaw ku xol mais ku sëñ Tuubaa jàngal nañu ko. ku soxor du jiite. Mm-hmm. foog sa xol toj de ku mënta miñ. nga mën a dékku mën a muñ jiite. ndax njiit njiitu Sénégal fii dafa metti de. tey bu fekkee ne yow tu es mm-hmm. lu ñu la laal nga fayu yow boo jiitoo fu nit ñi jëm. Ah, boo amee armée am air am doole am lépp. kilifa dafay dafay jéllale di jéggale waaye da ca war a pool sax di fenatal nag. ah waaw mais nag. dégg nga sama olof mais politique est-ce que bëri na ay ay kilifa. du ñu fi ah politique bi defante gi moo ëpp nag. Doudou est-ce que li ñuy wax xam nga chef de parti ne rime pas avec kilifa hein chef de parti c'est simple ah. non kilifa kilifa da ngay dem police ñu def enquête de moralité mu jàll gouvernance ak ministère de l'intérieur. ñu kiyal la rek ñu ne kilifa euh, signataires yi déet loolu deful loolu te chaque jour ma ko ku ber parti ñu lay woy président léegi mbedd boo jàll dootoo sax comprendre. ay ay waykat sax président lañ leen di wax. <laughs> c'est pas normal fii mooy Sénégal. Déthié c'est pas encore un président il faut dire monsieur Déthié il faut pas avoir honte. mais xam nga en France on dit Mélenchon les militants de Mélenchon ils disent Mélenchon monsieur Mélenchon. ça n'a du du respect du dara. Hmm. dëgg dëgg nekk gu gu ah, doon am. secrétaire général du parti. du parti. Légui parti dootul am. président président Bougan, président ñu am ñu ay président en voici en voilà te demaguñ fenn. mais après ñu bëgg dëkk bi du pëcc quoi ah, ñoom ñoo xam dañ dañ être président d'un parti sax d'accord mais dans l'appellation il faut ko mais mais peut-être peut de s'entendre appeler président aussi xam nga Sénégal daa bëgg tiital dañoo bokk ci loolu nag ñun waaw daa bëgg tiital Sénégal daa bëgg tiital dafa bokk ci euh, tolluwaay voilà waaw léeg-léeg ah. léeg nga gis ku dajale ñaari at ndeysaan ñu tagg ko ci une heure de temps mu joxe lépp joxe lépp ndax nee na deretam moo yëngu daan ne bis du rëy borom lay toll wax ju garaaw tuuti bés du tuuti wax bu dangereux ngi noonu. bu sonn bés du tuuti borom lay tollol borom lay tollol non bés ba ñëpp moo leen rey. moo leen rey ah moo leen rey de waaye loolu loolu du ko internet yi gisee xam ne balaa ngaa xam ne bis bi moomoo ko rek génneel sa bopp ci bis bi. maa nga xam ne bis bi moomoo ko. wala déedéet doo ci génn sax na keneen ñëw joxe lu ëpp li nga ko joxe woon rek fàtte nañ la. Hmm. kooku la ñuy jox bopp dama ne la nit dina bax ñu ne ñëw na bis sangam li wax nak dafa xóot eh, wa am nay ma fatali ni ma téléphone bi gaay duggu joxe sen xalaat ci li nga xamne nak nag ñu koy waxtane lu am solo ngi nonu téléphone bi 77 724 71 32 ngeen duggu daal di joxe sen xalaat waye li nga wax ci bés du tuti borom lay tollool man dal je sens un peu de manipulation derrière ça mais bien sûr xam nga lolu ñako ñako ñako defone ña ko hmm. euh, c'est une manière de dissuader la personne mu génne li yor. mais de manière très relaxe de manière volontaire maanaam c'est une soustraction volontaire. du du bien d'autrui. man noonu laa ko mën a jàppee parce que bés du tuuti boo xam lay tollool kon boo joxee lu tuuti yow yaa tuutil sa bopp. waaw dañ lay bokk nu mu mel yow a. ah waaye yow lii tamit. su neexee yow la. Mm. su naqaree yow la su tuutee yow la su ree yow la kit nga dem wut ku la jàppale sax wala ku la sotle. loolu léegi moo am sax ci politique. Mm. waaw exactement. Mon politique bi sax baat boobu moo ci exactement boo coowee nous ne yow la so coowul moom nous ne du yow. ah ouais, nak ñi coowul ñu ngi bind ci miiri de. mais Ousmane Sonko dafa comprendre ne il faut que mu xex du dor ñu naan ko bayil muy dor. moo koy tax a ci ci kanam. ah il a réussi hein. au à ses périls et à ses risques nak hmm. mais la ko tek ci kanam mom xam na ne dañ ne ko ak mom xalaatam ak ñakoy koy ne ko dor rek bu mu sedd wulil rek lu la way def nel makila la. Hmm. bu la mbóot mat bu la mbóot waree sax neel makee ko yónnee ci dynamique boobu la taxaw ak nag euh, avec avec de la qualité bien sûr parce que am na ñu ko jéem te jàllul mm-hmm. mais c'était sa procédure loolu mooy feeñ ci branche société boo dem daanaka boo gisee sax euh, ki nga xamante ne dafa jàpp ne pour mu lekk xaalisu diw wala far xaalisam génn mm-hmm. dañ na xaar ko ba xew am ñun suñ société ah, noonu la ñuy xew nag xew nag ku la gën a ngootu sax xew day génnee xaalis. waaw léegi kon. ñun lan mooy suñ problème. Ah. xew am yow dajaleel nga xew te sa doom bu góor bi ci kër gi